rey mbaa ma rey ko dernier doomam woote depuis la France ma ne ko mukk rama koy rey rendi xaax barke alxuraan tàggali bopp ak baat accéléré foofu laa ko accéléré ñu tiit daw dem jiiñ na jabar ji jabaru Amadou Ba bële la Amadou Ba loko taxaw fam na ñoo tegal gaay day ma may leen tuuti xeex la moment boobu bu ma ko génnewoon day yàqu ma bàyyi ba ñuy teg ba nax sénégalais ba kii jabaru Amadou Ba la ma deux jours ma ba mu des suba suba la dimanche samedi laa leen fëgg foofu indil leen jabaru Amadou Ba ñaare lam indil leen jabaru Amadou Ba bu politicien ñaare oh, oh ñëpp tey seen bopp ne kii doomeram la Amadou Ba xaj la Amadou Ba mbaam la fenkat la kii jarul wóolu ma rendi ndayam bopp bi laa tëbal ay nditam dañ ko gis yuuxu leen ko yónnee mujj ñu yuuxu wuy sama nday yàqu nañ oxo ci saase wax naa leen ko ci live rek woote wuy sama nday Mollah dama gis tiit dama ne ko lan la booy Amadou Ba bi Mollah nit doo ko sës boobu ba si miir futt ko taatu neen Mollah Amadou Ba bi nu ngi ko def nii ma benn waaye mu ma ko yónnee ma ne ko waaw woy à la guerre comme à la guerre à la guerre comme à la guerre xeex bu nekk am na stratégie ak noo koy defee seen waa ji je vais l'éliminer samedi laa ko génne affaire bi tasaaroo ñëpp partagé ñu bëri weddi ko ñu buggoon dem yëpp ah kii fenkat la kii naafeq la ñaar laa utilisé. jabar ne ñaari Guin guinéen mauritanien ñiy xeex kii moo géré guinéen yi mooy présidente guinéen yi guinéen ak guinéen kële moom mooy moom mooy géré fële Mauritanie ma ngay campagne <laughs> jaxase leen nag jaxase leen. ta kan ma eh ka kan wowuma de dedet ma jaxase sen nday ba bili ba tiit ne ne amadou ban wo mami ta parce que ta mi ngi wax ak man lumay wax ne mami ta ci savaay ga neen lu ko nangou de da koy defante nangam nak mel lu mami ta momay renseigner renseigner wu ma de waxuma ak mom de mais il fallait ma jaxase ñaar ñi jaxase ñaari jabar ya bili ba di peug du wax Amadou Ba na wax ak kële kële mi ngi wax ak man ay xaritu kële wooma mais yow Mamita da ngay wax ak moom wala man la si si si dafa wax ah non mais Mamita maa di ko du pa di làkki France man la yoo oh, reste là-bas reste non comme moi là on veut man la yoo oh, reste là-bas vingt quatre heures pour des élections présidentielles aw ma lu may leeral kenn je suis en guerre je suis en guerre oui parce que on se demande est-ce que Mamita euh, euh, dina la woo wala nag Amadou Ba fëgg ci jabar ja yàqal lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp boobu Macky fatt na fële man ma fatt ci jabar ja Macky Sall moom fatt na fële changé na gouvernement changé ministre de l'intérieur changé tout génne Ousmane Sonko vëf Ousmane génn vëf <laughs> sama boy séeréer génn fële tey jëkkalaat man de sama ñaari soldat yi ngeen de barke alxuraan aïe, Aïe aïe! Ousmane, il est très reconnaissant. Ousmane Sonko, il est très reconnaissant. bu mu Macky Sall woote réunion ma mais Le président dafa dafa vraiment pour se racheter comme yow y ko tu l'avais proposé prisonnier, il dit parce que ak euh, donc Macky Sall il bëgg a un euh, euh, mais Ousmane Sonko rek ko mais il faut bëgg quoi pour Ousmane Ousmane du bon il prend pas de l'argent c'est quelqu'un qui est très très très honnête il prendra pas l'argent d'Ousmane je vais essayer y Ousmane Yara dem gis Ousmane Sonko ne me Macky Sall daf la bëgg jox xaaliss jappala la Ousmane nako euh, Ousmane trondom la Ousmane <laughs> li ngeen def rek magna li ngeen def rek yaatu na li ngeen def yëpp gi yëpp te waron na leen ci baña baña fekk doyna lool rek doyna vraiment xaaliss <laughs> merci quoi merci billahi wallahi wa taala dama wor gemi ngi da wor ak ma sul sa manday Macky Sall joxul 1 franc Ousmane Sonko Ousmane Macky avait voulu donner à Ousmane Sonko Ousmane Sonko a rejeté l'argent te Macky Sall proposé Ousmane Sonko direct Khalis. billahi wallahi wa ta'alahi. ak samanda sama Ousmane Yara la yonni. Ousmane Yara dem wax ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko nako merci Ousmane li ngeen ci def rek vraiment Khalis Graul. je vais gérer avec mes gars billahi wallahi wa taalahi Ousmane Diarra delluwaat ak sama gars ak ñi am na ñeneen delluwaat wax ko Macky Macky Sall ok ya pas de problème du 1 franc bu Ousmane bu jot ci loxoy Macky Sall ba legi tegu ko woon bët benn yoon lañ waxon téléphone billahi oto yooyu Ousmane Sonko yor dañ ko louer du 1 franc wu Macky Sall dem mo ci dem ak ma suul sama nday ak sama baay barke alxuraanul karim un franc demu ca Ousmane dafa loué oto yooyu Ousmane Sonko billahi wallahi wa taala ak koor gi ma woor dogooguma il est 17 heures une minute ak ma suul sama ndaay sama baay un franc Macky Sall joxu ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko a buñ ko proposé pour arrière élection yi il a ba génn ay waxu article ay article la fa waxoon ne moom gëm na yàlla dafa des yàlla moom wóolu na jomaay Ousmane avait tout rejeté xaalis jëlu ko nangu loon élection yi dellu ginnaaw Amadou Ba moo tax Macky Sall mer def la le 24 deful sax li ko conseil constitutionnel wax lépp Amadou Ba moo yàq yàqal boppam mel ni dëmm yàkkamti parce que dem na France fen fa fen yu metti jël pétrole sénégalais ba jox France jël gaz ba jox France moo tax Ousmane bu mu génnee Ousmane Sonko bu mu génnee loolu la njëkk a def daf ne Ousmane Yara kaa ñu ànd ci sama tournée bi may def noonu mooy bu mu defee conférence de presse bi loolu lépp man maa ngi topp Ousmane Sonko même bu mu génnee kaso Diomaye Faye moom demul géej mais Sonko moom dem na géej sangu na géej bu mu génnee géej la jubali bu mu paree géej la dem ci hôtel boobu géej la jubali direct bu mu génnee géej la jubali moom Ousmane Sonko géej moo tax guddi googu ñëpp doon ko xaar ñii dem këram fees fa dell demul këram de géej la jubali sangu ba waay mais garab xamoon la mu ndox <laughs> dugg ci géej gi ak yërëm yi tooy xepp ak blouson yooyu muy rek dóor capuchon <laughs> <laughs> ma ne cooy sama daanaan bi boobu man maa ko topp man sama mooy sama mbër sangu génn gars yi jox ko mu changé ànd ak ñoom dem ci hôtel ba <laughs> lu mu njëkk a def moom mooy mu woo Ousmane Yara na ko jeune homme kaay gunge ma ñu dem Ziguinchor mu yóbbaale la Ziguinchor Ousmane Yara ne mais tout leader la yaay ma créé des problèmes de ah Mollah Moi, là, tout le monde dit que je suis pasteur, pasteur, pasteur, là. J'ai même des problèmes. Si euh, Moussa Fall pouvait me tuer, il allait me tuer, là. Il n'est pas content, non Non, non, non, doucement, euh, Yara. Non, il n'est pas content, moi, là. Il sait que c'est nous qui avons créé ça, non qui Moussa Fall, s'il pouvait me tuer, il allait me tuer et te tuer même. Tout ça, c'est nous qui avons créé ça, là. mu dencal ñu bañ ma bëgg ñu rey nga nga eh, eh, Ousmane Sonko la ton leader là il faut m'amener à Casamance là il faut dire que maintenant c'est ça c'est clair c'est clair là <laughs> ma ne ko non calme calme ne pars pas y a pas de problème dis-lui que mu dem wax ko ko Ousmane ne ko non garaawul Ousmane dem moo tax ma leen doon wax chaque jour ci live Ousmane négocié wul wootewul négociation amul benn compromis moo ak Sall joxu dara récupéré wul c'est moi qui étais derrière au moment où Johnny Ba l'imbécile qui a fait 13 mois de prison un conseiller de qui a fait 13 mois de prison pour avoir insulté Makissal via un message Johnny Ba mu fiisam bi nga xam ne mooy Umar Sow Umar Sow nekkoon Gabon di jënd ay fëgg jaay di yóbbu ay caaroy di jaay jël xaalisu sénégalais yi nekk Gabon ñu bari sàcc xaalis ba daw noonu la dawee Gabon Umar Sow mi ngeen di gis nii bandi salte sàcc wu mag a ngi nii ki koy commandé dooni bala tudd ne da ko bandum ñiy saaga wolof yi Umar Sow j'ai tes audios

ñun da nous ñu bëgg a on est prêt à vous téye di saaga non, euh, wolof xawma lan di La làkk pulaar barke alxuraan Omar Sow mii dañoo war a déegal maamam dañuy dañuy say saaga wolof yi nee na saaga n'en na wolof yi lu dul n'en, nee na ñoo ay esclave lañ fils d'esclave vous êtes des escrocs les imbéciles wolof esclave que vous êtes vous êtes des traîtres nous on est peul on est des nobles loolu wax Omar Saoumi. mii la wax ci pale ba Saga Macky Sall diñ ko traître diñ sama gars y avait Abbas hein. Abbas était là-bas hein. Abbas Fall xam allez lui demander il était là-bas Il y avait madame Il y avait Abbas Fall Pastef y avait euh, euh, Ousmane Yara il y avait le secrétaire du palais qui était là-bas quand il insultait les Wolofs Omar Sow heureusement que les gars il y avait il y avait plus de 50 gendarmes qui étaient là-bas ils avaient enregistré ça muy que Wolof Il di wax était esclaves secrétaire du palais Moussa Kondai. day fen ah day fen de xeexul am fa dóorul kur feñ bu fe booy boobu mun na fen ak ko mun a duul dóorul kur xeex daa am fa bu mu saagaa Macky ci biir palais ba boobu la fa gëj sax dañoo nangu doos kii yëpp lañ nangu gendarme yi di ko dégg muy saaga wolof yi di saaga Macky Sall di saaga secrétaire du pale devant Abbas Fall qui était là-bas Abbas Fall oui qui était là-bas madame ba là ba ñu jàpp ko gens ko gendarmerie ñu mais tu insultes au palais le président de la république qui est sous les drapeaux tu insultes le secrétaire du palais bir palais di saga ni traiter les wolofs de d'esclave de jam, que vous êtes que yow êtes noble la poule, pour pula la noble la di saga wolof palais secrétaire du palais mo génn gendarmerie japp ko yóbbu ko conk euh, conk lañ ko yóbbu mom la bind noonu eh, je suis en par pour ko oh, oh, oh. di lox loxi gaay ñoko fa teg ne dañuy nangam tan sanday si c'était pas aissata tal Sall qui a appelé nan ngir yalla secrétaire du palais mo don def plainte parce que dugg bir palais di saga président bi ay nday di saga wolof yi ay nday di leen traité d'esclave jàppee sa bopp noble di saaga secrétaire du palais di wax waxu alpulaar mépriser les autres races di leen saaga ay nday moom Umar Sow bii xamul leen luñ def moo tax gars yi di ko bàyyi muy taxaw ci télé ki dafa saaga yenn races yi il méprise les autres races di wax waxu alpulaar ñun nangu carte accès yëpp boobu la fa gëj ak say palais yep lañ nangu ba futt ko ba set fi de 50 gendarme wër ko ñu duggal ko ci auto yobu ko conk Aïssata tal sal mo wote di ñaan frère am buñ nan tierno son petit frère di wote di ñaan tierno tierno saw di wote di ñaan Aïssata tal sal di wote di ñaan ga ñi wote di joy lolou lañ ko libérer

Macky ci élection yi mu organisé mu jaar yoon loolu moo fa yóbbu Abass Fall boobu élection yi pare na bañ joxe résultat yi Abass Fall ne daf fay dem pour remercier Macky Sall ci ñiñ ëllëg électoral bu ñëwee dana doon def mu jaarale mbir yoon loolu Abass Fall moo jël décision dem en tant que Abass Fall ne leer Abass Fall moo jóg ne moom moom Abass Fall Macky Sall dafa ay élection lo jaare ko yoon ba kële defoon hold électoral jaxase mbir mu ne mu jege si pour ne dafa bëgg a dem foofu remercier ko et il a vu mu dem fa remercier wu ci ni Macky Sall jaare la élection yi yoon y avait dans le bureau Madame Mbacké y avait dans le bureau Ousmane Yara y avait yeneen ñaar ñu fa taxaw amoon na ñu taxaw mu remercier ko remercier mais Omar Sow li muy wax nii saaga yi mu doon saaga wolof yi dem leen laaj ko Abbas Fall mu mi ngi woon présent bu muy saaga wolof yi di mépriser yeneen xeet yi di jaar fu ñaaw di ñu traité ñun sénégalais yi ay esclave fils d' que alpulaar ñoo noble moom noble la di saaga nday Macky Sall di saaga nday secrétaire du palais bi ci drapeau

Johnny Ba moo nekk ci ginnaaw Oumar Sow recevait un million six cent mille francs par mois un million six cent mille francs par mois lu Oumar Sow mii di saaga Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen moom lay recevoir par mois mais amul kër amul oto amul dara trop tot lu mu am lekk ko jàppoon ne ñoom ñoo fiy toog pulaar yaaw yeeso ñu toog nag ñoom nete ko bandu bu dëgër lañ taxawaloon non munu leen comprendre xeex bu ñu xeex ba jële fi nii ca nete ko bandum bu huilé lañ tegoon ñoom nete ko bandum buñ def ay milliards financé lañ tegoon di def lépp pour Macky Sall bañ a génne Ousmane ak ki xam ne mooy Diomaye fay organiser ay élection ñu hold up électoral ko comme nous ko organisé après guen Moussa Fall génne gaay ray gaay 4 jours 4 maximum 4 jours. 55 maximum 4 jours sénégalais yi toog Ousmane Sonko da ngay là, ci kaso bi euh, euh, kii day nekk ci kaso bi ce Amadou Ba tegoon avec l'aide de Dieu on a tout déjoué tout on a déjoué tous les plans te Omar Sow Momu, Joni Ba moo Joni Ba ah, moi, mooy ki nga xam ne conseil conseiller Amadou Ba. Abbas Fall il y avait même le président le fils du président du Nigeria. Fof. il y avait Macky Sall le fils du président du Nigeria. il y avait Ousmane Yara il y avait Madame Baké. Il y avait Omar Sow gisee dans leen saaga ay amoufa, Dour amoufa, fa Amoufa, mais Omar Sow il est malade hein ci ku doon recevoir 1 million huit cent fen rek lay def bu newoon suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ni moom may kàttan googu ñu mun infiltrer dugg ci biir barke alxuraan dañ doon yóbbu élection yi kon Ousmane doonul génn mais Macky Sall yàlla moo leeralal kanamam à la dernière minute à la non le fils du président du Nigeria. le fils du président du Nigeria. le président du Nigeria a même parlé avec Ousmane Sonko quand on était en ñun ñii di lijjanti pour Ousmane Sonko génn Ousmane Sonko dafa dëgëroon dafa koom même Macky Sall la doon neen mais votre gars dafa metti Ousmane Sonko lànk loo ko wax mu bañ loolu mu génn ne wax indi nañ lu ne mais dafa bañ dafa compliqué woon parce que tamit ñun xeex bu ñu doon xeex moom ma Ousmane Sonko dafa dafa lànk lu ñu liggéey mu yàqu ko lu ñu liggéey Ousmane Sonko yàqu ko. moo tax doon na ñëw ci laaj naan mais waa ji dafa dëgër bopp man maa leen doon wax la mais Ousmane nag dafa dëgër bopp quoi loolu liggéey mu yàqu. ah le fils du Niger c'est le président du Niger donc le fils du président du Niger ok Niger ok mooy basement mi woon foofu mais loolu liggéey Ousmane këppal la ko <laughs> Ousmane moo ko du négocier du waxtan lo liguey da ngay dafar gâteau ba mu rafet mënu ko këppit tuur ma ne sa waa ji de ha pa pa pa pa foko fek julli di julli di julli waji ji comme julli kata Ousmane beug julli julli julli julli sport julli julli sport lire alxuraan julli julli ma ne leen mais kii dem la moo tax ne sama gars yi wax leen ko Mollah ne ko Mollah ngi lay nuyu xanaa nag jaram bi dina daw tuuti ne ko Mollah ngi lay nuyu. ne ko Mollah ngi lay nuyu quoi même ma bokk ne Mollah <laughs> Mollah Mollah Mollah li loolu eggali loolu liggéey Ousmane julli kucc kucc ci sport daw kucc kucc daw nekk ci tap tapiem boobu noonu velom boobu kucc kucc ci ñàkk tooy xeb génn doxantu o ma ne mais waa ji dina naqari liggéeyal jaata liggéey ku dugg dëggu liggéey ku juste liggéey ku véridique liggéey ku gëm yàlla moo metti non sonnoon nañ de <laughs> lépp ñu bëgg arrière élection mu ne déedéet loo wax mu bañ mais ma ne waa ji wow la wow la na non mais Ousmane Sonko compliqué na nag pa pa pa pa a ah, fils ni euh, doomam bi moo tudd Bazoum Bazoum Bazoum